ñu ngi leen ñaan nga nga abonné wala nga seetaan vidéo bi te bi vidéo nga mën di jot notification salatul hajati da nga amé ay haajo mu tere la nelaw moo xam ya da ngay def examen bëgg at mi la ya ndeysaanam da nga am gétt ak nag gu la nga bëgg mu feeñ moo ya da nga ami doom bëgg ñu am moo kam xaajo ya da nga amee doom bëgg ñu am soxna moo kam xaajo ya da nga amee doom bëgg ñu am liggéey moo kam aajo ya da ngaa ñëw bitim réew amoo foo liggéeyee wala fa nga doon liggéeyee ñu dàq la fa wala sax da ngaa bëgg fu gën a kawe foofa nga nekk yooyu yëpp ay xaajo la xaajo dafa bëri ba tax na doomu aadama kenn du ko xeebal xaajoom koo xeebal soxlaam rek ray nga ko nit ki kenn du ko xébal soxlaam soxla du tuuti ci boromam lu la nit ki wax ci soxla lo ca man jappalé ko ca bo ca mënu dara nga ñaanal ko yalla ta ñaan yalla sax jappalé nit la ci soxla kon daal lépp luy sa xeeti xaajo rek yaa xam xam na koo xam ne xaajoom tey ma ca kaso ga xaajoom lépp mooy na génn rek xam na koo xam ne dafa feebar xaajoom yëpp mooy na wér am na koo xam ne xaajoom lépp tey dafa ñàkk dafa bëgg a xoomal am na koo xam ne xaajoom góor ak seen si njabar la waaye bëgg naa am ñaar wala góor ñaari ñaar yi ci soxna la bëgg naa am ñett am na koo xam ne xaajoom mooy tool yu mu bayee am na koo xam ne xaajoom mooy jiw am na koo xam ne xaajoom mooy matériel am na koo xam ne xaajoom mooy daamaar ci oto yi wala ci jakarta yi am na koo xam ne xaajoom dañ koo nañ koo embauché rek la bëgg am na koo xam ne xaajoom marché ambulant moom la bëgg a dugg nii am na koo xam ne ambulant na ba bëgg a tuut ca dara ma ngay wër di jaay mais lim bëgg mooy mu toog ñu koy wër muy jaay aajo yi yëpp nag yonentu wax na ca joxe na solution bi. kon aajo yi dafa bëri te wuute noonu aajo yi bëri te wuute tamit ni la julleeg fajug aajo bëri te wuute ay riwaayaat yu bëree bëri ñoo ca wàcc xam na ci riwaaya boo xam ne Ibnu Mas'ud moo ko jëlee ci yonent ba sallallahu alayhi mu ne fukki rakkaa ak ñaar lay doon moom ngay julli ci guddi mbaa ci bëccëg ñaari rakkaa yoo am nga taaya kon da ngay yëg ne juróom benni sëlmal lay doon boo amee ñaari rakkaa taaya sëlmal amaan ñaari rakkaa taaya sëlmal amaan ñaari rakkaa ba mu mat juróom benn yoon su paree na bu juróom benn yoon yi mat na léegi na nga bàkk yàlla tagg ko tagg yàlla mooy la ilaha illa allah su paree nga julli ci yonantu bi julli goo man yaa xam allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim cala fekk nag da ngay bàkk yàlla ak di julli ci yonantu bi yow mii yaa ngi sujjoot man nga ba pare mais da ngay root nga sujjoot su jote tuddu La ilaha illa Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wala gënal salaatu goo man ya xam su ko defee nak yaa ngi sujoot nga jang fatiha juróom ñaari yoon bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex juróom ñaari yoon su paree nga jang ayatul kursi yu juróom ñaari yoon bu paree nga door wax nak la ilaha illa وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يومنا لول فك يوم رنغ خوي واخ سو اللهم اني اسالك بمقاعد عز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة ليه ده غير mom ben yon rek su paré nga talal say loxo nga yëkëti sa bop nak ba paré ñaan sa li nga bëgg lepp nga ñaan ko boko waxé boko waxé ba pare nak do a mal kon li moy salatul haja li ben riwaya la ci riwaya bi ibnu masud wax dal fukki rakka ñaar ngay julli ba paré mo xam guddi wala beccëk lo ca jang ya xam fatiha ak saar mokal way ñaar rakka am rek ba mat benni sëlmal su paree nga root su jóot sëlmal nga ba pare mais da ngay su jóot nga bàkk yàlla laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah benn yoon allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wala boo man benn yoon fatiha juróom-ñaari yoon ayatul kursi yu juróom-ñaari yoon laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fukki yoon su paree nag nga door a wax ñaan gii Allahumma inni as'aluka bi maqaidi 'izzi bu ko defee min arshika wa muntahar rahmati min kitabika, wa ismika al azami wa jiddika al ala wa kalimatika tamati li nga wax ben yoon su ko defee ñaan sa aajo fekk yaa nga sujjoot boo ñaanee li nga bëgg lépp ak lang woo ko mënee yaa yàlla na lang yépp julleetoo si sujjoot gi la boko ñane ñaanee wolof baax na soo ci français baxna boko ñane ci anglais baxna fekk yaa ngi sujjóot ba gannaaw bi nga waxee li pare nga ñaan li nga bëgg lepp su paré nak nga doora a siggi nag daal di euh, sëlmal ci sa nday jor sëlmal ci sa walu chamoy kérok bako yoonntu bi waxalee ibnu masud ak ñako ko won ci sahaba ya dafa ne leen eh, bu leen ko waxal ñëpp de bu leen ko waxal ñu dese ñi kat yalla yi bu leen ko leen ko wax ndax li ku ko ñaané yalla yalla nanguko te ku bon bu ko amé rek man na ci yaqaduna man na ci man na ci tukkal aduna motax mu ne ko bu len ko wax ñep wala tuallimu hasufaha fa innahum yad'una biha fa yustajaabu lahum loolu yonent bi waxon keroog kon xam na ci yenn xam-xam yo xamne kenn du waxal ñep ñu ko rek lañ ko wara jox ñu ko wut kenn du ci jël waye xam-xam nak boko waxe ci biir ñi ko ak ñi ko xeeyowut ñëpp suñ defi ko ñom ñaar ala kulli hal ña ko xeyoo buñ ko defee lañ ca bëgg dañ ko xam ña ko xeyoo xut buñ ko jëlee tamit duñ ca jëlee dara kon lii mooy hadis bu njëkk bi ci riwaaya bu njëkk bi ibnu Mas'ud a ko andi wér na boo ko jullee baax na julli nga daal fukki rakka ak ñaar juróom benni sëlmal nga su jóot bàq yàlla julli ci yonantu benn yoon bu ko defee tamit jàng faatiha juróom-ñaari yoon jàng ayatul kursi juróom-ñaari yoon jàng ñaan googu ma waxoon la laa ilaaha illallaa wahdahu laa sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa alaa kulli shay'in qadiir fukki yoon door a def ñaan googu ma waxoon la nag benn yoon su ko defee ngaroot rot su jóot ñaan sa soxla ni nga bëgg lépp boo bëggee seme boo bëggee soxna boo bëggee tukki boo bëggee liggéey boo bëggee ubbeeku boo bëggee fan wu gudd boo bëggee wiir boo bëggee jàmm boo bëggee sutura boo bëggee ñu nomee la ca place ba boo bëggee jege ko kilifa goo bëgg mu jege ko yaa xam su ko defee ñaanal boo bëggee dàq saytaane boo bëggee yàq dàq yàq kat yeeg rambaaj yeeg jaxase kat yi boo bëggee ñu dàq la ci sa place nga ñaan li nga ko bëggee yaa xam su paree nga siggi bu ko defee nag sëlmal amut taaya sa ndeyjoor nga sëlmalaat sa càmmooy jug dem kam ne yàlla dana faj sa soxla insha allahu bi hawlaahi wa quwwati beneen riwaaya ba Abdullah ibnu Ubay Abdullahi nu Abi Awfa moo ko indi Abdullahi ibnu Abi aw fa moo ne képp koo xam ne am nga xaajo mu jaaxal la lu mën a doon moo xam xaajo ja ci yàlla rek la ne walla xaajo ja yàlla xam na kum ko jox ba pare dafa ne ko joxeel ma koo ko téye ko parce que léeg-léeg am na xaajo joo xam ne yàlla wàccee gut ko nga bëgg a ñaan mu wàcc nga bëgg fii ne damaa bëgg yore naa tool mais dama bëgg mu taw. kaw koo koy laaj yàlla wàcceegut ko ñaan ko ko déedéet xam na nag aajo joo xam ne yàlla wàccee na ko ba pare jox ko nit na ko demal nga séddale kooku ko koo téye mooy aajo joo xam na ko am sa moromam nit yonentu nee nag ku mu ci ñaari aajo yi moo xam li yàlla wàccee gudd la mbaa lim wàccee wax ne nañ ko séddale gaa yi téye ko jàppal rek yow bu sa nekk jullil boo paree jàppal jàppalu sell nga julli ñaari rakkaa kese soo paree nga tagg yàlla ci laa ilaha illallahu muhammadu rasulullah bu paree nga julli si yonent bi benn yoon su paree nag nga wax ne laa ilaha illallahu alxalimul karim subhana subhanallahi rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin asaluka mujibati rahmatika wa asaima magfiratika wal ganimata min kulli birin wa salaamata min kulli ismin laa tadac li danban illaa gafartahu wala hamman illaa farajtahu wala xaajatan hiya laka ridan illaa qadaytaha yaa arhama rahimin lii rek ngay wax moom xamul sujoo julli ñaar rakkaa rek fatiha ak saar mokkal soo paree nga tagg yàlla bàkk ko julli si yonantu bi benn yoon wax lii ma wax wen yoon ñaan sa soxla jug dem soo mënul ñaan gi timit nag nga bàkk yàlla rek yow yàlla yaay ku tedd ku wét ki yaay ku lewet ku tedd kii yaay ki nga xam ne ni tudd naa sa sell gi maa ngi lay tagg di la ñaan bu ko defee nga wax sa soxla rek nga jug dem ah, boo defee yàlla dana faj sa soxla incha allahu rabbi bii nag mooy ñaari riwaaya ba moo gën a yomb bi ma la njëkkoon a jox. ba tey ci salaatul haaja am na ci beneen riwaay boo xam ne Ibnu Abbas a ko andi moo ne mu ne Ibnu Abbas nee na maa dégg yonantu bi mu ne Jibril ñëwal na ma indil ma ay ñaan ne ma yow yonantu su fekkee ne dafa am mbir mu wàcc ci yow ci mbiri àdduna yi. he na nga len jital nga laaj sa hajo mu ne ko lan la mu ne ko da ngay wax ne ya badi as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya sariq al mustasriqin ya khiyas al mustaxisin yaa kaashifa suu yaa rahama rahimin yaa mujiba daawat al mudutarin yaa mujiba daawati al mudutarin yaa ilaha al alamin bika unsilu xaajatii wa anta alamu biha faqdiha lii moom moo gën a yomb moom sax amul julli far ibnu abbas dafa ne jibril ñëwal na ma mu ne yonantu wax na jibril ñëwal na ma wax ma ne yow yonantu su fekkee dafa am mbir mu wàcce ci yow ci mbir mbiru àdduna nga bëgg ko pour muy xaajo boo bëgg pour jot ko waxal lii rek ñaanal nga wax lii rek ñaanal lii yàlla rek nga wax ko pare ñaan sa xaajo jeex na yàlla faj ko nga jug dem bi moo gën a gàtt yomb na ah benen bi ci tegu tamit nak moy ñeenteelu riwaya ba mom anas ibn malik ko andi ñi yeb ay kangam lu jégué yonentou bi anas mu ne yonentou bi sallallahu alayhi wasallam wa ali ibn abi talib ne ko yaa ndax duma la xamal ñaan go xam bu la ñakara dabé wala titangé boko ñaané yalla nangul la ci kartanal yalla mu ne ko lan la mu ne ko jappal bu paré nga julli ñaar raka, santal yalla nga bàkk ko nga julli ci yonentou bi jéggalul sa bopp jéggal mbool jéggalul mboolem julit ñi yow yàlla nga ma jéggal jéggal mboolem julit ñi su paré ba nga wax loolu na nga ne allahumma anta tahkumu bayna ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun la ilaha illa allahu alaliyu azim la ilaha illa allahu alxalimu alkarim subhanallah rabbi samawati sabci wa rabbi alarshi alazim alhamdulilahi rabbil alamin اللهم كاشف الغم مفرج الهم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك rahmaani dunya wal axirati wa rahimuhuma farhamni fi xaajati haadihi bi qadaa'iha wa najaahiha rahmatan tugniini biha an rahmatin min siwaaka lii rek ngay wax wenn yoon su ko defee jug dem yàlla faj sa soxla lii la yonent bi waxoon Anas ibnu Malik Anas a ko jëlee ci yonent bi yonent bee ko waxoon Ali ibnu Abi Talib xam naa ci juróomeel bi moom la lay wax mooy moom dafa ne beneen riwaayo dafa ne képp ku jàpp japp la mat mu julli ñaari rakka matal ko wala kulli hal su boobaa euh, même mom na julli ñaar rakka rek ñaan jom ñaan ya waxon yeb jëru ci ben yow dal jappal jappalu sel rek teewlu sa julli ñaar rakka fatiha saar woo mokkal xam bu pare nga ñaan say rek yalla dana ko fajj insha allahu rabbi amirul muminina ali ibn abi talib dafa daan wax ne radiyallahu anhu jamono ji nga xamene ni mbiram dal dafa jafé won lol xam mom moom ci ñu gëna jafé khilafa ndax dafa ak xuutu Seyduna Ousmane ni ñu ray ba lu ma yëge yeb di laaj bo mak Seyduna Ousmane ñom muawi yak ci and ànd ak ñoom Aliyu nak ci bir coono bobu ci la dund xilaafaam nga motax bu ko li musa rek ndaysan da fay julli ñeenti rakka muy ñaari selmal ben ba day jang fatiha ak iza sulsilatil ardu zilzalaha benen ba mu jang fatiha iza jaa nasrullah ñaar rakkaa ya demna benen beneen ba mu jang fatiha qul kafiruna benen ba mu jang fatiha qul wallahu ahad bu ko defé ñaan ñaan gi bu paré timit lam ca bëggoon yépp yalla defal nako bu paré mu daan wax ni nag allahumma inni asaluka bi asma'ika allati iza du'iya biha abwaabu samaa'i fatin fatahat wa iza du'iya biha مدائق أبواب الرحمة للفرج إن فرجت وأسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها أبواب العسر لليسر تيسرت وأسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على القبور للنصر انتشرت وصلى الله على محمد وآل محمد وقبلني بقضايا حاجتي وهي كذا وكذا nga tudd لي يعلمنا بتالبان وجفن àlli wi naa bi kon salaatul xaaja ngoog ala kulli xaal julli go xam a xam solo la te soxla yi dañoo bëri ji jamono su ma yeboo rek kenn ku ci nekk am nga soxla yu toll ni population Sénégal bi suñu Sénégal population bi 14 million la jëm kaw kenn ku ne tey ci ji jamono am nga soxlaa lu ëpp 14 millions ñii seen soxla yee xenu nañ ñii bokk nañ ñii boot nañ ñii ña ngay ñee ña watat am na far nag ñoo xam ne boole nañ yépp boole nañ xenoog boot ak birëng bokk ak jiital ak ak lu ne def nañ ko moo tax nag rawatina ndeysaanam borom kër yi ak jamono jéeg ndeysaanam jafe-jafe yi borom kër yi ci bari léeg-léeg nit ki fanaan fanaanoowul dépasse te borom kër goo gis mu tëdd fanaanoowul dépasse rek yow soxna si boo xëyee di ko nuyu si boo ne ko maa ngi lay mastagu ci sa mat gi jigéen mën naa matu waaye bu matoo balaa matoo at léeg-léeg ñaari at léeg-léeg euh, ñetti at léeg-léeg ñeenti at ba juróom waaye góor goo gis muy boroom kër fanaanuuxut dépense rek guddi googa guddi matu la ci moom ndax matu du dara mooy tëddee nu na rek jigéen kat bu mato bëgg a am doon dana tëddee nu ne waaye borom kër gu amul dépense tëdd ci lalam dana tëddee nu ne dana dëpp dana taanaayu dana wetu dana mën naa fanaan sax commencé teud ci commencement wu lal bi mu jexé wo ci jël ak lal ba bu nekké ku di lol bu amul sans sax mu daanu ci suuf lolo lepp du dara jaaxle yu bari bu jaaxla xasse bari lu lal bi noy noy da fay melni ay dekk lañ lay jam kay nii yaa ak ñent jeeg mba ñet ak say doom say jarbaat ñeenti es wër la te mëno ci dara te fo taxaw ne awma kenn du ko gëm wala kay abo amul timit sa ndoxam xarxaram xaram mënoo koo tuur sa moromam gor te loolu gor piir mënu ko wax dëgg yàlla facture ko yépp a ngi taxaw ki sa kanam xamoo foo koy jooy ji xamoo foo koy waxee ji buram kër gu mel noona lal bu mën a tëdd lu lal ba nooy nooy nga yëg nga ñàkk yëg lal ba mujj na lal ba mujj na wow te loolu nag bëri na ci borom kër yi kon ku mel noona ci coono nga xëy bëgg koo andi problème yi wax bëgg koo andi ay jafe-jafe mu bàyyi la am jàmm mu am jàmm waaye ku boole naqaru ñàkk googa bëgg koo boole coonoog jafe-jafe yi da dee ndax xam na loo xam ne tamit bopp xattanu ko te am na ci yoo xam ne tamit teg ko sa bopp dara jaru ko léegi-léegi nag nit ki bëgg a teg loo xam ne moo ko teg boppam te yàlla tegu ko ko yàlla wàccee na ko ca moom nangut cee wàccee boppam moo waxee damaa bañ ñi reema damaa bañ ñi xas ma damaa bañ ñi wax léeg léeg lii lu ñuy sa yoon bañal ñu tuumaal la ci mooy yàlla rek waaye lépp lu dul mooy yàlla duwul jaay sa ngor ala kulli hal bul ko bañ jaay sa ngor nak dar rajaru ko ci kaw suuf ndax kat sa deet ji di daw ci yow dañ la ko xabal ñala ko xabal buñ ko yakkon do jar dara te yow dafa waam ñoo ñoo ko war a xabal ña koy wara xabal wax deug yalla boko yakke timi duñ jar dara sa mama fi nekkon def lu nekk ci diina ji xabal deret ja sa bay sa bay def lu ne jël deret ja abal la ko yow defo ci dara bëgg ci nekk ci topal rek ci lu dégul dara bëgg jël deret jooju xabal ko sa doom xabal ko say set fuñu jëm da trop kon nañ yëg ne deret ji daw ci ñun ab ak am la ak àbb kenn waru ko yaq waye top rek sa bakkan ba yaq sa deret ji la sa baye xabal top sa bakkan ba yaq deret ji la sa maam xabal lu ko jar waxaguma sax diiné ji waye ji rek bu diiné amutoon yaq sa sa dara jëru ko waxumal nak bi diiné ñëwé nekkat benen kon yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel tey mu mel ni darsu bi ñaari julli la woon mooy taw ba di julli gu am am solo ak salaatul yi tey moo nekkoon suñu bopp darsu ñeen di woon ko di ñaan fépp foo xam ne nit a ngi ci na def na fexe def ko bu ko ñaan leen na dugal ci soxla yi de soxla yi dafa bëri Eh, su ko defee kon nag ñaan yàlla fajal leen seen soxla yi ñoo xam ne seen soxla yi mooy ña ca kaso ga lañ bëgg yàlla yàlla génnee leen fa buñ fa duggati ñoo fa duggagut yàlla fa dugg ñoo xam ne seen soxla yi dañu feebar nekk ci lali hôpitaux ya yàlla na yàlla saafara leen ñu dellu seen njaboot ga ñoo xam ne seen soxla yi poos yaa seen yaram wa wér na yàlla na yàlla saafara poos yi mu fees tepp ba taxawee jot buñ toogee jot buñ tëddee jot ñoo xam ne seen soxla yi mooy terrain buñ jënd yal na yàlla may leen ko ñii seen soxla yi am nañ terrain dañ ko bëgg a tabax am ñii seen soxla yi ñaar yëpp lañ bëgg yal na yàlla jox leen ko ñii seen soxla yi kat ay marché ambulant yi lañ nekk di wër na mu métti lool gàddu bagage yu diis léeg-léeg nga gis ñiy teg ko ci seen welo ya léeg-léeg ñiy ràngoo darab ya métti lool dox ñaq lool nga daw ca ba ngoon jot doo am téeméer boo jëndee añ ñoom tamit yàlla yàlla jox leen ay magasin au lieu que ñu ngi wër di jaay mais ñi leen di wër ñiy jaay ñi nga xam ne tamit commencé nañ ubbeeku tuuti di yóbbante siin yàlla nañ dem bay demal seen bopp ñooy dem di bokkaate conteneur yàlla nañ dem ba am seen conteneur yi bopp yu bëree bëree bëree bëri te lépp xalal ja bu ñëwee yàlla na ko yàlla def ci pénk yi te bañ ko def ci xol yi mam khalifa dafa daan wax ni halal bu ko yàlla defé ci sa xol do ca lek do ca lele bo de dem safara bu ko yàlla defé ci sa pénk yi nak dang nga ca lekk da ca lele yàlla fay la yiwu àdduna nga dee mu dugal la aljana yàlla ñu yàlla defal loola wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh